c'est même difficile pour me trouver les pour wax dëgg-dëgg li nga xam moom laay. Il m'est vraiment difficile de trouver les mots afin d'exprimer mes sentiments en ce moment. Je l'ai déjà dit, Diaga a totalement accompli sa mission. ndax borom këram. C'est indéniable car c'est son défunt mari lui-même qui l'a honoré et a fait plusieurs chansons pour elle. yàlla na ko yàlla xare àjjana que Dieu l'admette au céleste par sa grâce et qu'il bénisse sa famille. bu demee dinañu jaaxle ci njaboot mais yàlla moo yor ñëpp. loolu yëpp rek day dellu si ci responsabilité boo nga xam ne nag doomam di Wally Seck gën na ko am. son fils Wally Seck a désormais une grande responsabilité. Son père et sa mère ne sont plus de ce monde et il doit s'occuper de la famille. Que Dieu lui facilite cette tâche. ba responsabilité boobu mu gën ko mën a assumer.